salaamaaleykum euh, Abdou Aziz euh, Ndiaye euh, ñëw fi nga xamante ne mooy HLM 4 ngeen organiser lu mel ni lan mooy sabab li nga xamante ne moom nga organiser nii tey. alhamdulilah ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ziar ñëpp di wax ne tey association waa koñ bi en partenariat avec OADAS ñoom ñoo organiser journée de consultation ophtalmique gratuite. ndax dañoo seetlu daanaka xale ak mag ñëpp suñu bëri dafa yàqu ndax. ordinateur yi ak euh, portable yi léegi nag ñu xam ne nag euh, ñun suñu participation li ñu war a def ci HLM mooy li nga xam ne li ñu mën te lu ñu mën mooy lu mel ni organiser lu mel ni nit ñi ñëw euh, kii yëpp a fi daje nag obédience politique yëpp a fi daje nag ñoom ñëpp a ñëw parce que ñoom ñëpp la ñu invité ndax ñoom ku xool xam ne HLM moo la ñor moo tax boo seetloo parti politique yëpp ñoom ñëpp ñëw nañ pour jàpp ci ci journée bi. lii nag euh, mënul am lu dul ñi nga xam ne ñoom la ñu woo ñu ñëw indi seen dërëm indi seen xaalis dugal ci pour que képp ku consulté wu ñi may la verre euh, gratuitement ba pare consulté la gratuitement léegi ku ne xam ne ne association bi attanu ko mais part politique yi ne fii ak mouvement politique yi nekk fii ñoom ñëpp ñoo dajal seen xaalis jox ñu ñu woo waa Audace en partenariat ñu ñëw euh, def jeune bu mel nii kan ñi ngi sant waa HLM ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañu ak ñi nga xam ne ñëw ñëpp ak ñi nga xam ne amoon nañu yéen dugal seen xaalis si mbir mi ñoom ñëpp ñu ngi leen sant leen jërëjëfal. waaw Abdou Aziz euh, lu mel ni est-ce que xalaatoo ni lii maire moo waroon a jóg def lii nga xamante ne jàppale population. waaw xëy na maire mënul def lépp sax ndax bu ñuy xaal lépp ci maire état du dem mais ku ci nekk da ngay xool la nga mën a def nga apporté ko bon demoon nañ ci maire nag sollicité ko bon newoon na dina ñëw mais nag ba léegi gisaguñ ko waaw newoon na dina ñëw mais gisaguñ ko ba léegi Euh, ñi ngi xaar euh, ndimbalam daal parce que yóbboon nañ fa lettre ba secrétaire ma recevoir ñu mais ba léegi bon gisaguñ ni may wax ak yow nii xam nga gisaguñ ko mais HLM daal ku ci nekk yaa mën a jàpp ndax HLM nam meloon 73 80 HLM ku xool xam ne léegi dafa dégradé wu jeunes yaa ngi toog ñii di naan ñii di def naka su noonu HLM boo fi daan jógee dem ci benn quartier ne man HLM laa dëkk nit ñi dañ lay xoolaat ndax yiw bi waaye léegi foo ne HLM laa dëkk rek euh, dafa ragal moo tax dañu bëgg nag Euh, nit ñi yaruwaat parce que éducation dafa am solo ci doomu il faut nit ñi di di yaraat seen njaboot yi di euh, di góorgóorlu ci éducation bi ndax même bu ñu fa dugaloon milliard te asalem yarawuñu asalem day yàquwaat rek moo tax ñi ngi insister ci homme politique yi ñi nga xam ne dañoo bëgg a jël mairie bi ñoom ñëpp seen programme nañ ci boole éducation éducation religieuse éducation sportive lépp lu wàllu éducation yi nañ ko jël en euh, tani ko en compte. mais Abdou Aziz ñaan ngeen yàlla at bu nekk ngeen def lu lu lu mel nii tamit aussi euh, lii c'est pas évident li nga xamante ne jóg rek def lu lu mel ni am na ñoo xam ne dañuy liggéey pendant des années des années des années mënuñu am lii yéen ngeen ñëw. Euh, ci ci première euh, édition bi nii rek lii am jaar nii. affaire yi moom foog nga doon daan ndax association bi ay ndaan nga fi ne bi ay nit ñuy xalaat ñoo fi nekk xam nga te lii koñ bu jubóo ñoo ko mën koñ boo xam ne dañuy xuloo di xeex duñu mën lii de waaw koñ bi macha allah fii suñuy wajur ñoo fi nekkoon cat ba cat ñoom nekkatuñ fi ñun ñoo fi nekk ñun léegi ñun ñooy wajuru koñ bi moo tax ñun dañuy mànkoo di waxtaan di yëkkateendoo di di tegandoo lii nag première édition la bëgg nañoo chaque année ñi koy def am na yenn programme yoo xam sax bon euh, bëgg nañ ko def ci koñ bi mais tamit ñu ngi lancé un appel à toutes les bon volontés képp ku dëkk HLM. parce que fii ñu taxaw nii suuf la ak ku dëkkul HLM fii suuf la fii suuf la dañ ko bëgg a pavé déwén incha allah bëgg nañu suuf si dañ moo tax ñu ngi wootee mairie bi association religieuse yi mouvement politique yi nekk fii yëpp ñu ñëw jàppale ñu bu ñu gisee trésorier bi wala président yi man euh, su ko defee déwén daal bu ñu fa dajee daal euh, affaire bi daal mën a yem daal. ndax HLM dañu am kanam am gannaaw liñ am quartier yu bëri amuñu ko dangay dugg ci quartier ba gën doo gis terrain fii am na ay terrain am nañu kanam am nañu gannaaw HLM c'est bien lotissé HLM maanaam dafa pare daal maam liggéey ko mu mu dem dafa yomb dafa yomb quoi loolu nag ci kaw ñu nekk benn xam nga bokk nay bokk baay joxante loxo xam nga liggéey te bañ a yàqalante daal yàqalante bi amul njariñ dafay tàddal nit day tàddal secteur xam nga ak soxor ak yooyu ñun ñun daal ni lañ mën a jàppale ñun ni lañ mën a jàppale population bi di organiser yu mel nii di def yu mel nii su ko defee euh, ku ne gis euh, bopp daal. Euh, jigéen nag la sëñ Babacar radiyallahu taala daan wax rek daan wax naan jigéen moom kirik la ci oto maanaam jigéen moom balaa nga xam njëriñam nga paan war a démonter pneu boo gisul kirik fa ngay fanaan moo tax lu waaye di woote jigéen ñi ñee moo tax jigéen ñi ñoo fi njëkk organisation bi ñoom ñoo ko yor. ñoom ñoo nekk ci kaw ñoo ne suuf moo tax daan leen di jaajëfal euh, di leen ñaan yàlla rek. yow yaay kan il faut tamit nga présenté wu yaay président bi. waaw maay président association man nag daanaka dañ ma ne maay président mais fii ñëpp président lañ. parce que benn rek. nit euh, ànd boo gis rek il mu am ku nekk euh, ci kanam. dañ ma jiital mais fii ku ne mën na jiitu de man dañ ma fi jiital rek xam nga waaw mais Alice mii mën na jiitu Marème mën na dem Alain mii tam mën na jiitu xam nga mais dañ ma bu doon man rek maa koy doxal du sot mais ñoom ñëpp dañ bàyyi seen liggéey nelawatuñu xam nga génne seen xaalis képp ku xam bonne volonté nga dem yóbbu soutien mu nga indi pour li taxaw quoi xam nga fi ñëpp président lañ ñëpp ay président parce que nekkul man maa koy doxal quoi mais li ci gannaaw moom doole quoi ñoom ñoo koy doxal. waa Kabir TV nag bëgg naa nit ñi di fi abonné parce que foofu boo fa abonné macha allah dara lu rëcc nit da nga war a nekk au waaw ne ci dëkk bi ñooy ñiy waxtaan fenn nga ne ngàmm di xoolee baaxul il faut que tamit ngay wax di suivre actualité di xam li xew moo tax na ñëpp abonné ci Kabir TV macha allah. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax baax ah, di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal jàmm bu bëree bëri waa sama wàllu ci jigéen ñi man ci koñ bi laa dëkk ah, juddoo fi yaroo fi jeeba di sunu njiit moo sunu lépp lépp lu ñuy def soo ngoon rek dañuy dem ci jeeba moom la waxal. moom la ñuy jox li ñuy jox mooy gérer mooy def lépp daal macha allah. waaw di ñaan yàlla rek sunu association bi gën a nekk ay association yu gën a kawe kawe kawe kawe sunu njort ci barke yonent bi waaw ñun jigéen ñi nag moom euh, dañu jël rek manko doon benn suudewu waaw li ñu suudewoo dañu bokk sunu ndey bokk sunu baay amuñu kii moo mag amuñu kii moo ndaw amuñu dara dañu ñëw rek bokk pour mën na defar sunu gox nit ki amul ku goxam amul lu dul buntu këram amul lu dul këram lépp dañ ko jàpp rek pour defar ko di ñaan yàlla nag ah euh, bonne volonté yi ñëw jàppale ñu ñu mën a defar suñu gox defar suñu koñ ba ku ñu gis ne ah koñ bii de moom ñeneen bu ñu ko gisee sax dinañ dañ ñi xaay la ñu toppandoo leen ñu mën a defar seen i gox. macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ndax ki ñu tabb ba jox ko ko kooku moom daf ñoo doy daf ñoo doy ci biir doy ñu ci biti ñu ci sant yàlla bu baax moom am amuñ ci benn problème dëgg yàlla. ah Tabdou TV di ko ñaanal ca kaw ca kanam rek mu gën a nekk ay télé télé télé télé ci barke yonent bi barke sëñ Babacar mi ñu yaakaar rabbi yàlla taala waa gis nga lii. ndax nit ñi dañ ko soxla fu mu nekk nii jamono ji kenn wérul yow lan moo si sa teewaay fii nii ñu gis ni tamit Moustapha Diop wax na ko léegi maa ngi koy nuyu bu baax di sama xarit ah, muy nekk di jàppale askan ñi ndax nit ñi askan ñi moom la ñu soxla. di leen jox nuyoo président Moustapha Diop di leen ziar bu wér a wér a wér man la Adja Mame Khady Khoule présidente des femmes du mouvement 3M tey ma teew fi ci ndigalu président Moustapha Diop ay frère ay sœur am organiser lii tey mu rafetlu ko trop torop trop ndaxte lii mooy jëmale euh, euh, gox kanam ah mu am ci mu am ci taxawaay bu rafet rafet rafet rafet tey bu amoon li ko gënal day teew fii. day teew fii mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam vraiment loolu moo nekkoon sama teewaay fii may may nuyu aussi waa 3 di nuyu waa association waa koñ bi ndax lii ñu def nii xam nañ commencement bi mais xamuñu fu mu yem def nañ affaire bu rafet te gox bu nekk bu defoon lii tey defe naa affaire yi day jaar yoon ñu ngi leen ci ñaanal lii ñu sumb tey at mu ne yàlla na ci yàlla na leen ci yàlla defal lu kawe seen jot président Moustapha jóob nag c'est un jeune juddoo HLM yaroo HLM jàngi ñëw ne dara ñoruma lu dul gox bi nga xam ne fi laa footballé fi laa jàngee fi laa damay ñëw ànd kook waa doomu HLM yi ñu defar HLM kookoy président Moustapha Diop. balaa loolu nag il faut que ma taxaw dëggal sama bopp laaj mairie HLM loolu la bëgg bëgg ko ànd ak waa HLM. mais ànd euh, dëgg taxaw ànd ak HLM est-ce que loolu dina yomb. ah lu yomb la ci ñun parce que boo nekkee jeune juddoo HLM xam réalité HLM xam li HLM soxla xam li HLM di dund kon boo taxawee ne da ngay ànd ak waa HLM nee woo kenn topp leen sama gannaaw ñëw leen ñu ànd liggéey HLM defe naa nit ñi dañ ciy ñëw ànd ak yow euh, yomb na du yomb te dina yomb ci côté côté ndax politique de développement et social lay def xam nga te askan bi loolu lañ soxla askan bi loolu lañ soxla askanu HLM nag. nekk askan boo xamante ne dañu booloon ne bokk ndey bokk baay ah xool un jeune engagé ñu ne ko yow yaa ñu doy ci HLM muy président Moustapha Diop. waaw euh, président Moustapha Diop xam naa ni man ak moom suñu waxtaan du yomb maa ngi xaar mu ñëw ci jàmm ak salaam ndax xam naa ni ñu bëgg a maire bëgg nekk maire HLM bare na mais tamit kenn ku ci nekk euh, lii sa wërsëg rek incha allah moom ngay moom ngay moom ngay yelloo Abdou ndax population dañu soxla ku leen jàppale tey ñii lan mooy sa dernier euh, kàddu waaw sama dernier moom mooy euh, ñun waa HLM cité des eaux ba cité port bu ñu gisee un jeune engage dara ñoru ko lu dul gox bii di HLM nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk HLM suñu HLM la ñun ñëpp ko bokk bu ñu gisee ku taxaw ne dara ñoruma lu dul HLM damay taxaw pour jëlee HLM ci situation bi mu nekk ñun ñëpp dañ ciy ànd ak moom may woo nag HLM yëpp cité des eaux ba cité port encore une fois ñu àndandoo liggéey HLM ndax HLM suñu gox la buñ ko liggéeyee suñu bopp lañ ko liggéeyal président Moustapha joom nag c'est un jeune engagé taxaw ne dara ñoruma lu dul gox bi situation yii mu nekk mu jóge ci mu ñëw ak ay ambition ñëw ak ay idéem ñëw ak ak dooleem ndax ku ko ku ko fekk ci social rek xam ne yëfam la ku ko fekk ci développement xam ne yëfam la kooku mooy président Moustapha Diop encore une fois may gërëmaat waa koñ bi association waa koñ bi ndax li ñu def nii HLM yëpp lañu laal te lii HLM yëpp ci war a xool ku ne war nga koo def ci sa gox ay jàmbaar lañu ma cité ci nit muy Abdou Aziz mi ma dendal jàmbaar la ñu ngi koy ñaanal yàlla ak ñi mu àndal yëpp waa association bi yëpp di leen ñaanal yàlla lépp at mu ne bu ñëwee rek yàlla na dàqaat mi ci topp ci darajay Seydina Mouhamed ñu di leen denk sëriñ Babacar si suñuy sëriñ bi. yàlla loolu dafa am solo xam nga tey jeunes yi sax euh, am nañu responsabilité boobu xam nañu ko léegi mais dañuy man du li may gën a def mooy dama fay appel suñu yaay te léegi ñun màgg nañu te bëgg nañu jël dessin dessin boo xam te ne ñu ñoo ko jël suñu loxo te li may mën a wax foofu mooy dëkk jeune moo koy développé tey boo demee Bara Gaye tey moom euh, commune am da ko développé kenn boo demee Barthélémy Dias boo demee Bamba euh, Bamba Fall donc loolu wane na ni ne ñoo ñoo mun développé dëkk te jeunes yi ñun tey suñu concept mooy sukkali yàlla dañ dafa def nañ suñuy domaine bi ñuy activité fu ne la ñuy dem si monde bi di représenter Sénégal gis nañ développement nu mel tey suñu référence muy Chine yàlla def na dama lay wax tey am na set députés chinois yoo xam ne déplacé wu ba Sénégal ñëw fii pour rek gis benn jeune bu tudd Modou Dieng parce que dafa yore société yu mag yoo xam ne day def lu bëri te peut-être mënoon naa ko médiatiser mais defuñu ko te jeune boobu lu dama koy wax mooy créer emploi di jàppale ñu bëri surtout dans la sous-région Sénégal donc ñun tey devant la tey ñu ñu rendre parce que citoyenneté dafa am solo mais devant la tey ñu war a taxaw pour gindi population pour wax leen ay projet de développement yoom dañ dee nekk lu concret waaw donc ñoo ne gërëm di sant xam naa euh, di nuyu magu koñ bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu suma naataango monsieur le maire Mamadou Dieng bi ma fi fekk ak équipe bi mu àndal yëpp je veux citer Mam Demba Gueye je veux citer Mam Diouli Sy Zende Abdou Khadir et tant yi fi nekk ànd ak moje je crois que HLM nii la tëddee dafa am li nga xam ne soo leen ci woowee ñun ñëpp muy guddi muy bëccëg da leen ci war a fekk si parce que concept de concertation citoyenne bi ñuy wootee ñun dañ ko war a wuyoo nuroo ko asolem nag li fi nekk booy compter ci commune cinq cent cinquante sept communes yëpp asolem li ñu yàlla jagleel foo dem lu mel nii amu fa nous avons de grandes figures yi nga xam ne ñi ngi yewoo asolem ñi ngi am ay talent yu fi nekk ñi ngi am ay beaucoup de compétences qui son au sein de la commune je crois que damay faral di wax ne monsieur damay faral di wax ne bi ñu demee Tiwaawan di ziar sëñ Babacar si maam Juli bi ñu demee ci rawdu bi ñu laaj fan ngeen jógee ñu ne asolem ñu ne nag xam ngeen imaam Abdul Aziz moom ñu ne waaw ñun xam nañ ko ñu ne ñu bu jiitewuloon asolem ci rawdu sëñ Babacar si lay jiite waaw ah, loolu nag c'est une ñu amaan tamit benn góor goo xam ne ku yàlla baaxaloon ku yàlla baaxaloon muy Mouhamadou umm Lamine Sarr yal na yàlla tas ñu barkeem yal ko yàlla xare àjjana damay wax ne maam julli su doon amana rasul bi laa unsi bu doon nitu ko bind kon kenn dootu ko jàng ndax imaam Lamine Sarr ci teggin bi ak ci wax bi HLM nag ñu li ñu am ndawul bu lii amee organisation bu demee nii tout un chacun de nous dañuy ñëw jàpp ci bés bi te lu ci waay def defaloo ko sa bopp HLM nga ko defal ndax HLM moom moo mérité loolu benn nit ñaari nit mënul yëngal HLM c'est pas possible ku yaakaar ne. da nga bëgg a defar lu mel nii te fédéré woo l' ensemble des forces qui sont dans cette commune muy les forces politique les forces des mouvement affiliés communautaires comme associatifs nga dajale leen ci benn appareil soo demee di nga wér ci li nga nekk soo demee fa ngay dem néeg ba ngay dem yow rek yaa fay dugg appareil bi nag ñëpp mënuñu ko jiite il faut direct mu am un répondant direct un profil direct un compétent direct moom la ñuy jël. jiital ko mu mën a yore suñu HLM HLM su geesoo gis moo Dieng HLM su geesoo gis maam Demba Gueye HLM bu geesoo gis maam Julli Si loolu mooy lecture communale bi maire bi fi nekk nii Mbab Ababacar Sadikh il est en train de faire un travail extraordinaire c'est ça la vérité mais nikk ki li nga gis rek nga mën a gis loo dunt gis doo ko gis par échelon la dañuy ñaan yàlla nag mbébét bi mu amoon ba fi mu yem ñeneen ñu ñëw muy maam Demba muy Abdou Khadir muy keneen ñu eggale ay bébétam je crois que ça c'est important bon beneen bi nag dañuy saluer ñi nga xam ne vraiment ñoom ñoo tëddal lu mel nii parce que lii gëj nañ ko gis HLM mais loolu ñun du ñu bett ci ñii ñoom Abdoul Aziz ndax ñii biñ leen xam ëpp na 15 ans ou 20 ans te li ñu xam rek lañu ñu tari wàllu organisation wàllu thématique wàllu fait ñoom loolu la xam te loolu lañu ñu donc di ñaan yàlla journée bi ñeneen yàlla suñu borom bi teg ci loxoom def ci jàmma ba li nga xam ne moom ngeen ci yaakaar les recettes escomptées seront très positives par rapport à la situation communale. HLM nag du commune bu ndaw commune bu mag la nous faisons près de cinquante mille âmes ñoo fi yeewoo nous savon la taille de supérieure à beaucoup de départements du Sénégal lii yeewoo fii yeewoowul Bambey. lii ah oui lii yeewoo fii yeewu na renu ferloo nous avons un budget deux milliards deux cent millions deux milliards deux et quelques millions alors que le département du département de Kaffrine fait cent vingt trois millions kon oui li nekk fii nekkul fële donc il suffit de faire un réaménagement interne ñu xam lan mooy investissement lan mooy fonctionnement ñu dajale ko xool liggéey pour que toutes les compétences vivent dans cette commune mën ci gis seen bopp HLM tuutiwul te HLM tamit li fi nekk ndawul il suffit tamit encore de faire un redressement fiscal il y a beaucoup de niches dans cette commune il y de yoon yoo xam ne je crois que soo fa jaaree ah li nga xam ne moom ngay yaakaar di nga ko fi fekk donc ñi ngi saluer encore une fois toutes les organisations qui sont ici présents ñi nga xam ne vraiment ñoo ñoo taaral bés bi ñi nga xam ne moo tax tamit li nga xam ne tamit moom la yaakaar yaakaaroon ci bés bi franchement suñu borom def ci jàmm donc ñoo ngi nuyu ñëpp magu kër yi xale kër yi jigéenu kër yi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ne daal vraiment ñun mouvement bi ñuy diriger bu tudd ADEPS pare nañu accompagner appuyer subventionner l'ensemble des activités yi nga xam ne yu mel nii la suñ ñu ci woowee muy suba muy midi muy gudd je crois que ñun tamit dinañ ñëw indi si suñu suñu partition par rapport à cette question kon ñoo ngi nuyu ñëpp président di gërëm ñëpp. di nuyuwaat sama naataango Mamadou Dieng ak ñi mu àndal yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah